leral tu tv international am bir mu bes legui legui lan ko jël seggi xibar saytu ko dora jàllale amun ci kat morom bu len di dendale fum manan nek lum sori ñu dal di dem jëli xibar bi legui legui def ko leral tu tv international abonné partagé tay aimé daaray islam international ak leeral 2 tv international urgent ñi koy topp asalaamualeykum nuyu nañu leen foo leen nekk ci Sénégal ak ci àdduna bi wërngal kàpp ci yor-yor bu danga-dang jàpp njolloori talaata jile 29 octobre at yi 2024 suñu rubrique urgent bi wër Sénégal ak mond bi bépp machine bi El Hadji Gamou Ndiaye ñuy gunge dañu naan cow wutali Dakar honorable député Abbas Fall bokk te parti Pastef di seen tête de liste ca Dakar nee na daal réseaux sociaux yi ci subaak léegi daal ñu ngay euh, wax daal ak euh, tasaare ak wesaare daal naan dañ ko convoqué ca section de recherche bu genre gendarmerie bu Colobane nee na loolee amul tey amul ëllëg benn convocation daal jotu ko amul benn convocation boo xam ni jot na ko ab campagne am daal kon dana ko mën a wéyee lëndi kon daal xabaar boobe wérul te amul honorable député Abbas Fall bu Pastef moo ko weddi jërë ngeen jëf yéen ñi ni topp ci mond bi bépp ak euh, Sénégal ci leerlu gi ci gilintuk leeral tuuti bi international ak dar gi international bu daaray islam xibaar ke mbodnato a leer menena leeral to tv international ndax nun wenan gino xa leeral to tv international xibaar nu bëggoona nan rek nangi defa leeral to tv international in way leya nun joko njal na a nan nun nan wa leeral to tv